tay nak ñi ngi dalal ndaanaan ko xamne ki ñepp xamne ko ci xam-xam ko xamne ki ñepp xamne ko ci walu istikhara walu set walu ñaan walu ñaan yalla walu fajj mu yag ci def ay resultat am ñu ci jokol di leen ci jappalé ba na ba ba ñu xam ne xam-xam la ba ñu jappalé ba ñu wër tax ñu dalal ko ci émission bi di jotay xam-xam muy yaa Sayda alam Diouf dëkk fi ci parcel inte 13 kon kep ko xam ki soxla nga ya Sayda alam Diouf boo ñëwee ba croisement 22 garage su taximaanu Saloum Saloum yi da ngay laajte maanaam boo fa agsee rek eh, unité 13 boo fa taxawee ci garage bi rek mën nga ko woo ci numéro yi boo ko wooyee di nga ko mën a jot incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam 77 775 21 73 77 775 21 73 wala 118 200. 13 212 212 30 93 cent 212. 30 93 78 212 30 93 yaa Seyda Aram Diouf yaa ngi si biir émission jotaay xam-xam ci Touba TV bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku télé Touba TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa réew mi yëpp ak ñu ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp di nuyu sama am ci Facebook ak ci Instagram ak ci YouTube yëpp di nuyu ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi di eh, ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiix defal ñu jamm bu baax a baax. alhamdulilah Yacira ñu bari xam la ci walu istikhara ak walu set say resulta yi ñu ci def manam ñu bari dañ danaka yow ya ci tok ñu ko waxee maanaam Sénégal bokk na ci ñu fi dakk set lo set foko foo ko waaw set mom fi ci senegal ma ci man mhm. te yag na ko wax ci yenn émission yo xam ma ngi koy def. Mhm. te ba léegi tamit ma ngi koy dëggal duma ci daw dara tamit. Mhm. parce que ma jël samay engagement woté ko. moo dina seet du lu ma jàng mhm. mosuma am mbokk moo xam ne mi ngi seet pettaaw mhm. mosul am am mhm. naa nag ay maamu sëriñ yoo xam ne dañ li si xaar wala ñuy seet ci tomb wala ñuy seet ci ndox man nag maa si juddu nekk jigéen di seet ci pettaaw te loolu nag dama koy sante yàlla du lu may namoon waaye seetal nit ki gis ko moom du sama problème moo xam nga nekk ci réew mi moo xam nga nekk ci bitim réew soo ma woowee téléphone jox ma sa tur ak sa turu yaay ma seetal la lu leer naññi jox la ko loolu dal moy sama métier te maîtriser nako bu baax baax. alhamdullilah su ko defé kon yalla dafa am lu ci may à part euh, loolu da ngay seet wala kurus wala yeneen am nga yeneen façon euh, yo xam ci da nga ciy da nga ciy xool. waaw am ci ndox. ndox waaw amna naa ci kurus. amna sax talal solo ko ma seetal la. waaw bu ko defé yoy yëpp nga xamné amna am na solo macha allah. waaw nga seetal ak jigéen ñepp lay seetal moy xalé yi ndaw yi ku febar ak ku wër ñëppay ñew fi ci kër gi. na di leen mom moy buntu bi mooy buntu ndax nit ku ñëw ci yow. Ah. jaaxle bu ñëwee lim ko wax mooy isi xaral ma wala xoolal ma. loolu mooy buntu xam-xam. mooy buntu xam-xam. ci seet bu fekkee yàlla dewal na ni Sénégal yaa ko fi dàq. nga man ko yaa ngi ci am résultat su ko defee kon euh, loolu am na solo Yacida kon bu ñu duggee ci biir waxtaan wi Yacida dugg ci loolu dañuy ñëw ci garabu olof maanaam garabu olof dañoo dégg na it am nga ko xam nga ko te maîtrise nga ko. waaw bëri nga loolu ci yàlla may tey boo ñu doon leeral ci garabu olof lan mooy xob lan mooy reen lan mooy xas. waaw reen ren ak sunguf mhm. xop ak sunguf parce que mhm. gis nga ñoo xam dañuy fac ci ren waye dañuy gas ren, wal ko sunguf jox ko clientèle bi mu nan ko mhm. du res febar rek la lay nil moy ren waye su fekke xop la nak nga diko ko fajee dafay res wala lu melni dom doom bi garab bo xamne da dafay meñ dom ba dafay faj waaye dafa am koy fajee bu dee la tamit dang koy dag amna période bokay koy amna am koy weeree amna no koy yàlla day may dafa am. waaw dafay may ku ko neex sax dañuy wax ni Sëñ Tuubaa dafa wax ni xam-xam dëgg-dëgg ci góor yàlla yi ne ci dënd góor yàlla ne waaw yàlla maanaam liñ bind ci téere yi nii mhm. xam-xam la waaye xam yàlla dëgg mhm. ak am xam-xam dëgg-dëgg bokkul ak li ci téere yi xam nangu naa xam nga la lasaraar mhm. soxla nit ki la mu fëgg buntam ñëw ubbi la ko saa nga jox ko garab sax aajo bi faju na ba mu duggee ci dënnu sëriñ bi parce que sëriñ bi am na lu mu liggéeyal yàlla ba mu nangu ko waaye nag sénégalais moom boo tànkut butéel bu mag jox leen dañuy yaakaar ne fajagoo leen kii tey bu ñëwee indi xam-xamam euh, soxlaam ci man mu ñëw ne ma yaa Seyda dama am ay catastrophe sama kër dama am ay jafe-jafe dafa am ay nangam ma ne tekk déglu ko ba mu wax ba pare ma ne ko alhamdulilah saaju bi faju na day génn ci buntu kër gi mu teseeg moom te du ma tibb sunguf jox ko te du ma tibb reen jox ko waaye nag reen bee sunguf bi mooy muur bagage yi maanaam ci lay imaanam di gën a dëggu waaye nit ki su amee xam-xam te muy dëgg ci moom soxla doomu aadama bu mu dégg rek faju na. léeg-léeg di ngay xaatima xaatim musallas wala xaatim murabba. damay xaatim. musallas wala murabba. waaw damay damay damay bind xaatim ci nopp. ci nopp am na tur yoo xam ne bu fekkee da nga koy dugal. da nga koy mhm. isaab. Mhm. dugal ko ci biir xaatim bi. Mhm. moo xam nopp la. wala koo xam ne dafa bëgg place la. moo xam koo xam ne dafa bëgg dem tukki. dama ciy liggéey ci alxuraan. waaw moo xam ne yow sa garab day am alxuraan. man sunguf bu ma la jox ànd naa ak alxuraan. sunguf bu ma la jox ànd naa alxuraan. waaw mbokk yi kon ni ko déggee yaa sayda Aram Diouf dëkk fii ci parcelles yi lim jot a tàmbali gis nañ dal gi ak teey gi ak euh, leer gi ku jàkkaaroo sa xar kanam dana xam ne bu dee am na dara ci yàlla dana xam ne yaa ngi werd tur yàlla ndax tur yàlla ku koy sikkar sa xar kanam te lay njëkk a feeñee waaye tamit sa jëmm lay njëkk a yar ba nga yaru kon loolu xam xamal nañ ko suñu bopp boo ko defee kon loolu am solo di fàttali ne yaa sayda Aram Diouf képp ko xam ne kii bëgg ngaa jokkoo ak moom mi ngi fii ci parcelle unité 13 boo ñëwee ba ci croisement 22 laajteel garage bu taximan Saloum Saloum yi ku fa taxaw rek woo ko ci numéro yi may bëgg lim muy 77 775 21 73 wala 78 212 30 93 78 212 30 93 93 li ma gën a neex ci Asira nag mooy damaa gis ni ku la woo yow lay jot directement. sëriñ su bëri da leen soxla woo leen bëgg leen a jot soxla waaye da ngay jot keneen kooku gën na maa neex ci yow bëgg naa képp koo xam ne si yaa ngi nekk sëriñ. sa numéro téléphone war nga ko mën a joxe ku la soxla ku la woo soxla la man laa jot yaa Seyda loolu maa ngi la ci encouragé mhm. muy ku la woo jot la gi loolu am na solo masha Allah tax ma gën laa sopp loolu te la bokk kon bu ñu góor góor gu tële bu njëkk gis mag ñi da moo xam si day dem ba am 80 ans wala mu am 85 ans wala mu am 90 ans diggante di takk soxna oh. léegi nag xale yi ndaw yoo xam ne si 20 ans la ñu am 22 ans ñooy am mu tële nga ne ki euh, daan la man kat soxna si ñaanal ma ndax ñu ngi bëgg a may soxna te wóoluwuma sama bop wa lolou nak ñaar daf koy def wala ñett sax lay wax parce que stress yi dafa bari mo ci jitu stress parce que xel goor su toogul góoraam du meuna taxaw xel mi. kon ndekete. xel mu ñaka dal man na te ngóor. wa mu ñaka dal la wala chat la wala ngelaw seetaan fekk fekk xel mu ñaka dal xam nga xalé yi dañoo bëgg lu bari bu ñëk da nga doon yor benn neeg rek nga yor soxna so xey am kilo ciap jokko soxla yi bari wul legi nak soxla yi dañoo bari parce que yaangi ngi xalaat appartement bi nga yobbu soxna si bu weer deewee weer ak moromam dañoo daje. nga wara joxé dépense wara financer ndaw si ndax dana solo te dina am crédit te dina téye téléphone iPhone. loolu problème mu góor yi la. ak connexion bi. mi ngi non mhm. bu lolu passé nag muy stress am benen fièvre muy rap parce que mhm. xalé légui ñepp la rap duggu mhm. parce que bu ji góor la muy yutal tubayam. du ko tak mu dëgër. raba a ngi ci mom jigen la du mur bopam te du sol lu jot raba ngi ci mom muy jigen bu yëg banex sax ci jamono bi bëreetul. Mhm. da ngay seeg ñom ba sonn rek bay bàyyi leen ñu bari mhm. ci sëriñ ci dañ may wo di ko wax nan ma amna ko xamne ki bi ñewé neenu ci and borom këram yëg banex lolu lolu lolu lolu lolu lolu rab la rab la mhm. ak ka doylo goor bi nga nekkat ak ka doylo manam di seeg ci borom kër sa xel nekk ci bon ndaxte amoon nga ko ñëk bëgg ba min ko kon dafa mel ne kon yow sey da yow sëriñ nga waaye fa mel ni gynéco laa da nekk saalu si psychologue dafa mel ne xam nga société bi ni ñuy doxee parce que ci la ci laa yëngatu te jigéen laa waaw euh, te sama néeg nee naa tout le temps su amoon caméra surveillance nga jommi waaw parce que kenn ku nekk da ngay indi sa soxla nit ñi lay indil nag ci ngay jàngee àddina du man damay génn di dox wax dëgg yàlla sama appartement bi su ma fi yéegee mën naa am une semaine du ma wàcc ci suuf mhm. parce que troisième laa dëkk mhm. waaye problème yi ci biir kër yi mhm. lu ci ëpp ñàkk yemale say bëgg-bëgg la mooy ni problème faiblesse yi ngay gis ni yëpp ci jigen ñi ak ci goor ñi mhm. am nak yo xamne mom rap la mom moko def ci nit ki ji mhm. goor bo xamne 25 ans la mu tak jabar te mënulu ko dara mhm. day gënt di sey jigen bur bu set lolu rap la faaw mu fajj ko ci bopam fajj ko nak doy ñu xey ak gontu parce que moy suñu métier su nexé nak yalla suñu borom limay may wax man mo dama lepp lu may dugg rek dama nan su nexé yalla ci katanam mom moy fajj du man may fajj parce que doomu aadama bi mënu dara de yàlla kese moo man jox nañu nag secret yoo xam ne ñoo ngeeg moom waaw yow sax dane maa farat naa fil kitaab min shay'in téere bàyyiwul dara jeex na mm. yàlla maa barkeel garab yi rawatina garabu zaytun yàlla nag bu tuddee garabu zaytun mm-hmm. tudd na garabu mango garabu dimbu looro xam nga wen yëpp mi ci biir da ngay gis benn sëriñ nga ñëw mu ne la jaaro bii mm-hmm. soo ko takkee balaa moom am une nga am li nga bëgg moom moomul ñaan gi bay mm-hmm. garanti yàlla sunu borom moomoom ñaan gi mhm. moom mooy ki kay jox ki ko neex mhm. te moo koy nangu mhm. tout le temps damay wax communication sëriñ si dañuy des tuuti nga baal ma ci kàddu yi parce que sànniwuma kenn xeer waaye waaw waaye yàlla mooy nangu ñaan kenn ku nekk booy wax na ngay wax dëgg lu nekk ci yow moo ne jox na la xaatim yi jox na la sunguf yi jagleel na la garab yi pour nga fajee ko waaye na jiital yàlla ci li muy def sëriñ bu ne la nak une semaine nga koy gis jox la délai lek sa 400000 soko waté téléphone doko jot liste noire lay lay dugal. Mhm. lolu mom tout temps moko ci émission budul bi bii sax. Mhm. kon ñaan yalla yalla mo koy nangu waye rap lu ñuy faj la du lu ñuy yar ci nit ki parce que boko yéré mën na lay nit problème mu do am dom waye yassé day mom ko la wo jot la. ku ma woo danga ma jot su fekkee japp ma wax tamit da fay lèr suma jappé amna fi ay liggéey kat ma ngi leen di gërëm sax parce que nuyu ma leen. sama liggéey kat machallah ñu jambar lañ ñu xarañ lañu. Mm. ñu mën a accueillir nit lañu. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp jarul may lim tur parce que bu ma lumee damay jum am naa staff boo xam ne maa ngi ak ñoom. Mm-hmm. ñu di ma jàppale ci liggéey bi. Mm-hmm. en tout le temps tamit su ma jàppee ñoom ñoo yor téléphone yi. su ma jàpputee nag maay wuli sama bopp ku fi ñëw fekk ma fi te ku ñëw ma recevoir. ku ñëw te ku ñëw tamit duma la dàq te du ma la siis te du la bojj bañ naa ko ba ci bu mag laay teg te ku ñëw dangay lekk ba suur naan ba màndi waaye tamit dinañ la faj su fekkee mën nañ la faj su fekkee mënuñ laa faj it xool nañ la dañ la yebal nga dem feneen alhamdulillah loolu leer na. Hmm. kon buñu jige ci loolu dañuy ñew ci jigeen jo xamne ci manam dafa añ rap manam jigeen jo xamne ci si mel na ni mu war mel waye góor gu ko euh, bëgg rek bu ko tak soxna manam du du soti wa ila kum seel bala mat 3 mois 4 mois nga tass da ngay gis ko xamne ki almi man na ci tass ñent yoon. wala mu faatu sax. waaw wala góor góor goo tak gañ bu yagee nit ñi gafal la ne ki ka dagaf gaaf. rabangi ci. Mhm. rewandi tamit mi ngi ci. Mhm. nee naa ñaari soo indee rek da ngay indi xam nga kuy faj bu ñëwee taxaw ci benn position bi rek matut parce que am na ñoo xam ne nee naa la réew moo tax seen sëy yi di tas parce que xale boo xam ne yaayam su ko yónnee mu bañ su ko liggéey looyee mu bañ du bale du raxas du fóot bëgg dem kër goro kër njëkkee du sotti du fa yàgg jëkkër ji su waxee benn baat du du mottali ñaareelu baat bi kooku du yàgg ci sëy am na koo xam ne nag dafa yaru lool yiw lool yàlla nattoo ko sëy kooku rab a koy def wala mu nek galankor bo xamne dafa nek ci yaramum lu melni ciat tamit daf koy def parce que ciat nak mom tam lu meuna galankor do ma aadama. nangu nga ñu ne ciat ciat làmmiñ dafa am ciat bu am. nang ñaar ñaar yep dafa am. Hmm. ciat làmmiñ nak mo ci gëna bon. mom hmm. dafa melni balu fetal buy dugg ci biir yaram. li aram nan al aynu wal wal wal wal lisan làmmiñ ak beut làmmiñ ak beut senegal moko mo yebati rek na demu hmm. parce que arab bi mom dàmm la wax mooy dret deret waaw. Euh, senegalais bi nag ngay dekkal nga ñak sa sakene bi ñaay ci koñ bi ñu ne demu nga waaye dëmm piir dëmm est-ce que am na dëmm piir mooy borom alal yi sax ñaare mhm. ndax dama gis na ñu koy jiñ ñëpp parce que ku am euh, ku am wërsëg ku am wërsëg dëmm dafa am wërsëg dafa am wërsëg sax mhm. dëmb mooy koo xam ne ku am wërsëg la ci koñ bi waaw parce que ki mën a dem naaw fekk ji doomu aadama bi mu lekk ko mhm. kooku moom mën a fekk wërsëgu jàmbur mu dagg ko jëmale ko ci boppam saalum nag boo fa demee ku ñàkk ki ku tekkiwul dara wala wala ah. dugal ak sa rawaan ak sa ak maanaam loo war a am rek la wax lii. am na dañ koy foqar ñi mhm, waaye dañ koy indi waaye dañ koy dëj. Mhm. d'accord nga gis koo xam ne wërsëgam dafay tasaaroo tout le temps wërsëg bi dañ koy indi dëj ko mu toog mhm. loolu am na jaaro boo xam ne da koy takk. boo amee alal joo xam ne da tasaaroo wala nga nekk ci famille boo xam ne jubluwuñu la. nga takk jaaro am nit ñi bëgg la sa bopp. di la jox di la may. loolu yëpp dafay nekk. wante li gëna bari nak ci dooma adamay mo di nit ak lay jege lool way mo la yakal mu lay yakal ci bëtam wala mu yakal la ci lamb kon cat negaté bi la gëna a jege bu baax koo bokkal lay yaay waaw maam mën naa cat cat sët làmmañ bu ay lañu ak bu aay waaw nit mën nga bokk ak mom nday ak baay mu xam dara tay waxamo dara mhm. so demee ci yeneen réew yi bari dañ koy wax lu mhm. melni ni Mauritanie gi mhm. nigeria lélé da ngay togal ak awsa yi parce que dañ fa bari dañ nan la dëmm Sénégal rek moo koy maanaam diw dëmm la yaayam dëmm la baayam dëmm la soo demee si ñoom nit mën na nekk dëmm te fekk te ki mu bokkal ndey ak baay xamul dara moom la yàlla def làmmañam aay ak bëtam aay alquran indiwul fenn ne dëmm dafay naaw wala dafay an yaakula laxma aqiihi maytan bët ak làmmañ rek lay di alquran wax waaw maanaam bët ak làmmiñ bi wax ci doomu aadama mi ngi man indi am na sangat yoo xam ne ne soo ko sangooyee mhm. bët mënu ci yow dara ku la xool bët bu bon sax day faatu bala ñu ne cat bu rëyul semmal nangu nanguna ko dalay top ba ca bir bàmmeel sax. ñen ñi ne ñu diw gën aduna ñu sax juróom ñaal na nga àjjana la. chat la ko leer am ñu ne cat bu nekk ci yow man ah, nga diko ko sangutu man lay dama ko ñëwaat. est-ce que yow am nga lo xamni ci si jox do dootu ñëwaat. sangat la la wax waxuma sax takk téere. Mhm. sangu cat dootu la jàppati. alhamdulilah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki teewlu ak a sen télévision biir tuba TV sen émission jotaay xam-xam ngeen ci and ak ah, sëñ tala bu ko defé kon tay ñi nga dalal ya sayda Arame Diouf dekk fi ci Parcelles inter 13 boo ñëwee ba croisement 22 ci parcelle laajteel garage su taximaanu Saloum Saloum yi boo fa accès rek nga woo ko ci 77 775 21 73 77 775 21 73 wala nga woo ko ci 78 212 30 93 78 212 30 93 numéro bi mi ngi jàll noonu ci kanam écran bi yaa Seyda lañ dalal lañ dalal tey yaa Seyda Aram Diouf di ko bëri xam-xam waaye gis wax ci wax ji saa bu waxee rek daañu jiital yàlla wax ne lii kat nangam mën na ko def waaye lii kat léeg-léeg société bi wala nit nit ci jikkoom dana koy def ndax yaasee daal léeg-léeg nit am jikko bu bon jàpp ne liggéey la fekk moom moo ko tàmmal boppam. Mm-hmm. lu mel ne ñi nga xam ne si dañuy tàmm tux. Mm-hmm. nga xam ne tey man ñoo ko xëy bàyyi ko waaye tàmm la rek. nga mm-hmm. ma man nga jàpp ne dañ laa liggéey ngir ngi tux fekk fekk looloo tàmm la boo ko jëyee bàyyi bàyyi xam nga tux ñaare ñi am problème rek ñooy tux. ñi am problème waaw. ku am problème te gëm yàlla du tux parce que natt bu ñew rek da fay japp ne yalla moko tek tay tey suba mën na ko teggi mhm. yow nag nga ñakkal sa bop fayda bo bo amé problème ku lok sa jabar sax so guéné jënd galanu cigarette diko foy di tux bu yagge nga tux yamba loy digal ki am ki am problème ak débaram au lieu que muy tux wala muy tàng diko dor japp sa saa boobu nu war def japp dem julli ñaar rak tok ñaan yalla xat-xat yi mu nekk yalla guéné ko ci ki mu ki nga xam dañ ko tarbiye tas ci yow mu xam yalla mm. ñu yar ko mu xam dal xam tey jàng alxuraan est-ce que su meree it mën mën naa maîtriser boppam. kooku day maîtriser boppam bu baax. waaye ki nga xam ne parce que bi yàggut dégg nga dégg nga ci internet bi waaye ñi nga xam ne si dafa mer mandi jël jël paaka dem jabar di mu dee est-ce que kooku yar nañ ko. waaw kooku kenn yaru ko. Mm-hmm. parce que yarul ci diine tey boo ko seetlu woon. Mm-hmm. dama naan jàngaluñ ko jongaluñ ko yaruñu ko. rek. xam nga bu njëkk jongali yi léegi du jongal. parce que mm-hmm. dañ la yóbbu ci hôpital bi dem jongal la sa yaay uuf la di la unuunee. njëkk dañ loon doon defal lël mm-hmm. nga ne man du ma lekk laaxu diwtiir wala du ma lekk mbaxalu saalum mm-hmm. ñu witt la ba ngay bëgg a dee ak yaru daqaar mm-hmm. tegal la nga lekk ko soo génnee ci lël bi rek dafa am lu muy def ci yow cosaan yi ñu bàyyee nag lépp lu ñu am nii moo ñu ko defal nga nekk ci daara ji ñu lay jëng di la dóor di la yar jàngal la alxuraan parce que alxuraan dugg ci dënnab koo xam ne dóoruñu ko léegi oustaz bi bu jéngee ñu jàpp ko yóbbu ko ci kaso bi kon nañ xamé non nañ delluwaat ci cosaan bu dëkk ah. mag ni daaw ñu am fièvre jabet mm-hmm. daaw ñu am tension dañ dan dund ba gën aduna dara doon daal légui nag fièvre da gëna gën a bëri feebar yi yi gëna a bëri parce que garab yi ci bëri bu la ko joxé nga nan ko li ñu lekk baaxul sa yaram wala mu yàq ci sidit xool AVC yi bëri na mm-hmm. té bu dëkk jamono suñu tuba am doon jamono bañ ngi si am waaw jamono bobu nak liñ doon lekk ak li ñu tay du ben mm-hmm. parce que bu ñëk netatu mo amone ak keccax nga dëbb ko xam nga mag yi dañ non dëbb légui la am loppës lañ non lay wax wolof bi man sa dama gëy gis Euh, dem ci àll bi gis ñaari jigéen jàkkaarloo ku nekk yor cour di debu man yooyu sax dinaa gis. amatul moo tax ñàkk ñàkk boobu nag moo tax mu indi jabet parce que liggéeyatuñu. Mhm. da ngay dugg ci néeg taal kilim ba mu sedd guy. Mhm. nga génn ci biti dank ceeb bu tooy xepp. ñu mhm. masi ko ba mu yàqu ajaa ko jonge ko. waa def ko yeneen ak yeneen ak yeneen nañ ma baal nag borom société yi may tudd. <laughs> léegi nga ñëw lekk ko ba pare te doo dawi woo entraînement woo fóotatoo nga ñëw ne da ngay am jàmm. sa organe yëpp lay yàq. léegi nag nga del demaat ci docteur yi hôpital yi ñoom itam ñu doggali la. parce que comprimé comprimé yi ñu lay jox ak li nga feebar sax léeg-léeg du nekk benn. léeg-léeg tamit nga ñëw ci sëriñ si nag. parce que man bu ma laalee fépp laay laal du ma fara kenn. léeg-léeg tamit nga ñëw ci sëriñ bi mu xoolal ne la dangaa ngaa cancer fekk te da nga am diabétique. jox la benn garab nga naan ko moom tam mu indi la benn problème. kon daal médecin bi praticien bi kenn ku ci nekk ci ñun war na maîtriser li muy def. waaw te yow eh, li ngay def jàng nga ko maîtriser ko. maa ngi sant yàlla ci côté macha allah te yar nañ la ah. ci yaru diine. yar nañ la ci ah. xam yàlla yar nañ la ci. Mm. bëgg yàlla yar nañ la ci julli. Mm. jaam yàlla kon loolu am na solo ndax eh, comportement bi wane na ko gis nañ ni nga solo macha macha mm. allah eh, kaddu gi wane na ko boo ko defee kon njëkkate temps bi ñëw ci feebaru émorite jàngoro Kajoor bi nga xam ne si. ñu bëri dañ naan dafa am bu ne ci biir am bu ne ci biti ñu naan picc ci biti loo ñuy ci biir ci biir ak du ci biti ñett daf koy bañ moy yap bugu ko bu nek ci biir waaw soko lekke dina la indil ay problème yu dul jeex lu niin tamit bugu ko guddi surtout en même temps tamit bugut kané hémorroïde nak dafa nek fièvre bo xamné ne ndoxu siti moko jur mom mu jur hémorroïde hémorroïde nak day indi yeneeni i mom mom moom na la indil yeneen fièvre yo xamné ay doomu ngor la am ko man nako indil mën ko indil mën na ko indi sa feebaru bopp parce que moom léeg-léeg day def loo nit hémorroïde sa yaram bi dafay mel ni ndox bu tàng boo xam ne dañ ko cee sotti muy dox ci sa yaram bi nga yaakaar dañ laa liggéey nga yaakaar ne dañ laa liggéey wala dañ laa sëf wala yaram la fekk hémorroïde moo la ko def wallaay lancé ñenn looy wax ñu koy soxaale ñu bëri dañ koy am di ko soxaale di ko soxaale soxaale boobu est-ce que baax na ci soxaale bi baaxut ci parce que da nga ko war a faj mhm. xam nga tey bu fekkee da nga doon toog sa yaram bi di tàng guddi ngay naan paracetamol war nga mën a dem seeti ji lan moo la jot léeg-léeg sax hémorroïde dañ koy jiin liggéey man gis naa koo xam ne bitim réew la nekk mos na ma woo téléphone mu ne moom dañ ko liggéey parce que bu demee ci biir liggéeyukaayam dafa mel ni day dégg ay ay picc yuy sab bi ma ko seetalee laa ne ko du rab du liggéey hémorroïde moo la jàpp mu ne ma mu ne ma génnul ci man ma ne ko mu ci biir toog na une semaine rek mu bët di xeli dët bu mu yàgg mu commencé di génnee deret bu ñuul kon di fàttali ne bu ne ci biir léegi nag mu ne mu ne ma léegi nag liggéey baa ngi nii to génn na. Mhm. mu ngi senn ma ne ko hémorroïde la. hémorroïde jëlal traitement hémorroïde nga faj sa bopp. Mhm. su dañut nga dagg billet nga ñëw Sénégal. Mhm. parce que faju na foofu ci docteur yi ba sonn. bi bëgg sonn te ñëw dafa naan garabu hémorroïde mu arrêté. mu ma ne ko nag jeexagut ci biir da ngay continuer nga di ko naan. du da nga koy def traitement 15 jours rek nga naan ko mu jeex. déedéet da ngay continuer problème mu hémorroïde hémorroïde nag ndoxu siti mooy base bi. parce que ndoxu siti bi dafay ñëw du ña du feeñ ci yaram bi mhm. génn am na yoo xam ne day génn ci weyi mhm. am na yoo xam ne day génn ci karaw waaw am na yoo xam ne dañuy leel am na yoo xam ne tànk yu lakk la lay indi ci suuf tànk yi gis ko ay dàll sama tuuf tànk yi day mën na dox sax man gis naa ay maire yoo xam ne dañuy ñëw fii mënuñu dox fu mu indi la oom waaw problème yu oom yi metti mhm. surtout jigéen ñi na wax nga jigéen ñi la gën a sonal day xonq wala mu ñuul. ndoxu siti mooy def li nga am na kon ndoxu siti ndoxu siti moom dafay jur mboole mi jàngoro moom. wax ah, nga dëgg waaw moom mooy indi hémorroïde mooy indi yeneen. feebar day feebar bu dee lay nekk. Mm, ci ah. ko waxee noonu la tëddee. garabu docteur nag aayu ci garab bu wolof moo ci gën a aay mooy reen ak sunguf. kon daal ko am ndoxum na ñëw ci yaa daa alam juuf mu traité ko mu deñ waaye garab gi lay jox day ànd ak alxuraan karim. day ànd ak alxuraan karim. ndax yàlla moo ne wa nunazzilu mina alxuraani maa huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alquran muy safara waaye safara gona ànd yërmande yonent bi sallallahu alaihi wasallam hadith boy werne addu'a wa silahul mumini ñaan mooy nganaayal julit kon yonent bi la moo tax yaa seeda yonent bi wax loolu te ñun toujours bu jaaxee ñaan ñaan de ñaan parce que boy teud sax war nga meuna ñaan parce que da fay top jigen góor xale bu ndaw bo xamne mi ngi namp ci biiru yaayam ci wenu yaayam wala muy nek ko xamne parental la bu fer xam nga parental ci wala waaw kon loolu leer na génn la Diouf wax ji leer na kàddu gi macha allah seen émission jotaayu xam-xam ngeen ci ànd ak uh, sëñ Talla tey ñu ngi dalal yaa Seyda Arame Diouf nekk fii ci Parcelles Assainies unité 13 boo ñëwee ba ci croisement 22 rek boo continuer tali bi mel na ku jëm hôpital ma Abdou te dafa àgg garaasu taximaanu Saalum Saalum yi ngay laaj boo fa agsee rek laajte uh, maanaam woteel ci numéro yi muy 77 775 21 113 77 775 21 113 wala nga oote ci 78 212 30 93 78 212 30 93 nga jot ya Seyda Alam Diouf ku ko jot ko macha allah loolu solo benen bi manam ku dégg ni waxe xamne ay mbiram duwal na ci yermande kon kep ko xamne ki ñoo ngi fi rek ah, amal yaqin ne sa ayu dana faju ci kap ni yalla ya Seyda kon ñu delu ci leneen lo xamne ci si sonal na doomu adama yi muy li nga xamne ci mom lañu wax ngelaw seytaane moy lan ak kum nek ci yow nan lay fenc ci yow. waaw ngelawu seytaane nag ñaar mm, nee naa la ni muy duggee ci xale ak ni muy duggee ci jigéen du benn. du benn ni muy duggee ci góor tamit du benn. Mhm. nee naa góor goo xam ne bëgg ngaa mucc ci seytaane bàyyi li yutal sa tubéy. jigéen boo xamante ni bëgg ngaa mucc ci seytaane del muur sa bopp. Mhm. xale boo xam ne yaa ngi koy nàmpal wala nga koy boot fexeel ba bu lekkee nga raxas ay loxoom. Mhm. jigéen boo xamante ni tamit bëgg na ci mucc mi ngi sëy balaa moo tëdd na léemu. jàngaay musluwaayam. pour mëna mucc ci seytaane parce que seytaane mom tout temps da fay and ak rap du seytaane bo xamne da fay ñew seytaane du nit du rabit waaye fay dugg ci biir nit ñi fay dugg ci biir rab yi leer na alxuraan lënkaloo waaw mu melni kon euh, ya si daal li ci des tout juroom minute mo ñu déssé ci waxtan wi bu ko défé kon gis nañ né ya nga def émission di wax ci xam-xam waaye ya nga ñaax nit ñi ci ñu gëna a service waat gëna xamal seen bop gëna xam fi ñu seen tank kon lolu am solo waaye damay ñew ci lo xam ne mën ta ñak mi ngi dal sa mbokk jigéen ñi fibrom. waaw fibrom nak ñaar da koy def. Mm-hmm. planning. planning familial. wara jur ta juro mm-hmm. xam nga doomu adama bi ñu ga kenn bu mu planning waye planning pour ku nef la nef moy ko xamne da fay am doom admi, bu déwénee mu amaat doom. Mm-hmm. da ngay gis jigéen bo xamne ben doom la am. mu planning 10 ans mi ngi sey ndox bobu amna na fu muy dugg day jur benen doom rek moy mooy fibrom yi. d'accord waaw benen bi ah. tamit muy jigen bo xamne dafa tollu ci sey di daqé di daqé ba am 40 ans te sëyut fi borom dakoy koy ci parce que bu li nga bëgg a moy mm. nit ki lo war dafa def ko. waaw boo sey sel sel bo waré am dom amal doom boo waree lekk lekkal. boo waree am dom bo waré ñalaw ñalol bo waré am dom amal dom boko def rek da la di feeñ sa. ci ci sa santé. té li ma lay wax ni jigen ñi makoy waxantel xam nañ ko. Mm-hmm. ku tollu ci sey tollu ci jur te sëyoo juro mm. fi borom gane la. alhamdulilah euh, moom tamit dañ koy saafara. dañ koy faj wante nag fi borom nee naa booy wax da ngay jiital yàlla. Mhm. fi borom am na fi muy toll. Mhm. sëriñ bi mënu ci dara. Mhm. lekk na sa xaalis waaye du la faj. opéré rek koy dindi. mooy su fa xasee ba màgg su xasee ba am benn tomb bi nag mooy lu tuuti mu ngi xasan ci biir. kooku moom ren mën na ko dindi wala sunguf. su xasee ba màgg ci biir bi yaa ngi santi ne mi ngi yëngatu wala mi ngi puus. Ah. kooku médecin yi rek ko mën dara ko mën a génnee. garab wolof bo nan bu dagge ci biir dee lay gën a si. Mhm. la ko wax. merci ya loolu leer na limay tey sama waxtam moy li wax perte balance bari sa mbokk mbokk ci mbokk jigéen yi mi dal perte balance moy tamit na da nga wa perte balance perte balance moy lan. wa perte balance moy affaire bu jaune bu jaune day nek sax blanc. Mhm. mu nek ci kanamu jigéen. Mhm. dem sax ba jaune dem bay guiné deret xéñ lool nak day dal jigéen bo xamné day fo day fo bu yemee ci jëkkëram te jëkkëram fo wa man nako ñak dal. bu jëkkër ji day fo da koy am. ndax da ko koy wàll da koy jëlee ci beneen jigéen indil ko ko léeg-léeg tamit nga am koo xam ne ci doom la ko jëlee ci amam doom la ko jëlee basin yi ñu leen di tegal mhm. dafay wàlle léegi léegi euh, a laaj euh, que mën moom perte blanche mën dem ba tere am doom waaw perte blanche nag euh, mën na la teree am doom mën na la teree yëg bànneex parce que moom boo xasee ba commencé am perte blanche rek yi day dugg mhm. infection nag bu xasee xam nga xale yi léegi li may wax tout le temps dañoo salte mhm. salte set nañ ci jëmm ji waaye dañoo set tut ci biir. ci biir li bu njëkk. Euh, euh, kon mu mel ni Yacine lan ngay tàggatoo. waaw maa ngi tàggatoo tàggatoo boo xam ne du tàggatoo di nuyu sama client yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci biir kër gi ak ñi nga xam ne ñu ngi may wooyee ci biti. Mhm. ndax man macha allah ay client yu baax la ma yàlla séddale. Mhm. ñu am kóllëre la ñu am na ñoo xam ne bu ma xamante ñoom mën na cinq ans. Mhm. te ba léegi ñu ngi jàpp te bàyyiwuñu. fu ma toll ñu may nemmeeku nee naa ñaan bi ñu boole rek moo gën a tuuti. waye connaissance be xamanté bi moo pas lépp. parce que ñaan bi rek soxla ñaan bi kessé dafa dafa touti trop pour ñu xamanté nga ñew rek ma ñaanal la nga dem sa soxla faju wala mu ñak faju yëpp nga dem sa yoon lolu touti na trop. waaye macha allah yàlla dafa ma bolé ay client yu bax tay li ma sol ni client mako solal. France la nek macha allah ma ngi koy nuyu xamna bëggul ma tuddu turam. Mm-hmm. émission bu may def macha allah may solal yéré mo xam mëlfa la mo xam ciub la. mo xam lu mëna don doon ma émission yi ngay def rek man na lay solal. soxlawuma dara ci yow. parce que daf ma gis rek bëggal ma bopam ma ngi koy nuyu. te bu gisee émission bi dina xamné yéré bi mom la. bu ko ta am amna ay client yi nek ci biir rew mi tamit sama ay xarit lañ ñu bari bari wax deug yalla surtout jigéen ñi nak parce que ñoo pay problème. ndax ñun tamit ñu dañ ñoo note lool. te amuñu fu ñu waaw ñi ngi sante yalla nak di ñaanal ñepp jamm di ñaanal rew mi mu am jamm yalla mi borom jamm yalla nañu jammal nguur gi nga xamanteni president mu ngi ko yenu bëri coow lool waxuñu ci sax ta waron nañ ci wax. Mhm. waye temps bi moñu ko mayut. na ud nak luy fay ciow mhm. ti na wuti ñuko ñuko ñaanal parce que nguuram gi degeerut nga bal ma ci kaddu yi. Mhm. ko gisal sama bop ta ken waxuma ko. di ñaanal Sénégal yëpp ñam am jàmm kon président de la République maître Macky Sall. yaa Seyda Aram Diouf may wax ak yow fi ci télévision xiba TV. neena sa nguur gi degeerut wuti ñaanal ciow li bari na. bëgg nak bokay recevoir mu ya sey la adam Diouf man may may may may góoram bo leen ñu recevoir man ma and ak mom man mi mortal bu ko defé kon lolu président dégg na en tout cas dal li ma koy wax ni yalla tax ma diko ko wax. waaw na ut nguuram gi lu ko dëgëral. ak fu mu ko mën a wutee ji. Mhm. pare tamit lolu wax na ci ben émission bo xamné ben benn YouTube moma interview bi mako waxé waxee une semaine la oto bi tak waaw kon nak waxon nga ko. waaw waxon nako avant bo duggé ci YouTube da ngay gis ma di expliquer lolu kon nak coow li bari na. foo biyee yaa ngi fi pétrole baa ngi fi coow li moom ku ne xam na ne Sénégal léegi coow ko yore. Mhm. dara doxul ndax coow. ray yi ray yi bari na accident yi bari na accident yi. kon nag mhm. ñun ñaanal ñëpp jàmm. Mhm. kenn ku ci nekk daal saaroo woo mokkal sooy bo nga di ko jàng. ndax saytaane ñoom ñu ngi ci biir Sénégal toog te ay rab lañu. yàlla nañu yàlla musal nag ci ñoom. yàlla sàmm ñu aar ñu. iir ñu làq ñu fa yàq yeggul te sotti koom-koom Sénégal te bu ko sottee yàlla na jubal suñuy ay njiit bañ mën see jot. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dina ngeen jëf mbokk yi kon mu nekkoon seen émission jotaayu xam-xam ngeen ci ànd ak sëñ Talla fii ci seen télévision bii di Touba TV jotaayu xam-xam kon jeex na képp koo xam ne kii tamit maanaam bëgg nga ñu dalal la ci rek boo wootee ci numéro yooyu di jàll ci kanam écran bi daañu la dalal ci émission bi nga waxtaan ci xam-xam tey ñu ngi dalaloon Ya Seyda Adam Diouf numéro mooy 77 775 21 113 77 775 21 113 wala nga woote ci 78 212 30 93 78 212. 30 93 yaa seydaa xam naa yeneen émission yeneen yeneen